Euh, mbokku téléspectateurs yi nga xamante ni jamono bu nekk yéen a ngi topp programme télévision Futur Média ñu dellu si waat nag ci seen bloc d' information muy soir d' info euh, bi nga xamante ni 19h lay tàmbali ginnaaw. pàcc bi nga xam dinañ ko def ci wolof ak bu journal français bi jàllee nga xamante ni dinañ amaat beneen gan boo xamante ni fas nañu yéene waxtaan ak moom tey ji ci lépp loo xamante ni dafa aju ci wàllu stratégie ak développement jëm ci wàllu napp gi Diène Ndiaye la tudd nekk directeur fële ca euh, ministère en charge de la pêche euh, moom nag moom moo yor lépp loo xamante ni aju na ci pêche continentale ñoo ngi xalaat nag ñoom ci ay stratégie yoo xamante ni amal nañ ko ay yoon yoo xam wut nañ ko ngir lépp loo xamante ni nekk na ay ak jàmbat tey ji ci wàllu pêche ci wàllu napp gi ñu xool nan la ñuy def ba jëmale ko kanam waaye balaa loolu suñu gan gu njëkk nag euh, kenn dootu ko présenté muy Simon Kouka moom nekk na artist nekk acteur culturel nekk promoteur tamit ak entrepreneur di def entrepreneuriat sociale bokk nag ci kuréel gi nga xamante ni dañoo fas yéene def li nga xamante ni moom mooy dox ñaxtu ginnaaw dogal boo xamante ni jóge na ci euh, kilifay réew mi daal di tere lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu yëngu-yëngal maanaam ci lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu musique ak yooyu ñu daal di koy euh, ne nañu ko dakkal jamono yi ndax euh, feebar bi nga xamante ni jàpp nañ ne dañu dugg ci deuxième partie bi di Covid deuxième vague bi donc Simon daal di ñëw fii ngir représenter artistes yi waaye joxe xalaatam ci wàllu interdiction yooyu Simon ñoo ngi lay dalal ci plateau Soir d'info di la nuyu bu baax. waaw jërëjëf di la wax waaleykum salaam di la remercier ci dalal bi ci invitation bi aussi. Mm-hmm. et di nuyu téléspectateurs ak internautes yëpp yu ñuy seetaan. alors euh, information bi ñu amoon mooy euh, suba yéen a ngi doon waaj li nga xamante ni moom mooy doxu ñaxtu. Mm-hmm. waaye information bi ñu mujjee am mooy marche bi nga xamante ni bëggoon ngeen ko. Mm-hmm. neenaal nañ ko annulé nañ ko. exactement koy dëggal wala déet. waaw dama koy dëggal parce que léegi nii laa sànq nii lañu jot information bi. Euh, toog toog ñaxtu la woon sax parce que sitting la ñu bëggoon def. Mm-hmm. bëgguñu woon def ay trouble à l'ordre toog rek bëggoon toog rek. Mm-hmm. au moins indigné wu. Mm-hmm. wane suñu naqar ak suñu métit par rapport arrêté bi ministre l' intérieur génne. mais interdire nañ ko ne nañ dañu ragal trouble à l'ordre public. ak tamit euh, situation Covid bi tamit permettre permettrewul toog ñaxtu boobu. loo xam ne ñu ngi koy ñaawlu di ko métitlu parce que loo xam ne suñu constitution mooy charte ndayu réew daf ko. autorisé daf ko nangu. ñoom ñu décidé ko interdire. ñun bu ñu waxtaanee ñi si bëri dañu ne dañ koy def. donc suba ak lu mun ti xew. nañ def suñu toog ñaxtu. parce que du yoon. malgré interdiction malgré interdiction bi parce que du yoon tey journaliste yaa ngi liggéey. tey boo ñëwee caméraman yaa ngi liggéey. bi may ñëw ci yoon bi bus yaa ngi fees del tata yaa ngi fees del université mu ubbi na. Euh, marché yi ñu ngi fees. mais ñu ne ñun xam naa ñun ñoo tax Covid bi di yokk. ñun ñu bëgg ñu tere suñu liggéey. dinañ dellu si waat ci interdiction bi. Mm. lan ci boo bëggoon tey ji ñu comprendre. li nga xamante ni moom moo indi coow li lan la en réalité lan ban dogal moo dal seen kaw ngeen jàpp ne diis na ëpp na mënatu leen ko. dogal bi mooy dañu jigi rek toog ne musicien dootul defati spectacle noonu laa ko mën a expliquer dootul defati liggéeyam spectacle mm. ñenn ñi dañ ko jàppee kaf foo wëy fecc. alors que liggéey la si ñenn ñi ñenn ñi ay instrumentiste lañ dañu def ay at yu bëri di jàng instrument def ay at yu bëri ñu ne ñoom ñu nekk docteur bëgguñu nekk avocat ñoom musique lañu taamu musique boobu noonu commencé di fay musique boobu noonu tax ñu takk jabar créer ay foyer ñii louer ay appartement ñii jënd ay kër tey ñu si bëri si ñoom mënatuñu fay facture courant mënuñu mënatuñu fay loyer lu tax parce que benn arrêté ministériel moo génn tere ci yenn place publique yi lépp luy spectacle lépp luy euh, prestation artiste mu nekk lu injuste parce que bu ñu teree woon yeneen secteur yi sax ñu comprendre mais loo xam ne mën nañ ko accompagner comme ni ñu ko doon def accompagner ko respecter normes yi respecter distance barrière respecter te ñoom mënoon nañu teg sax beneen dogal ñu accepter ñu ne bu ñu ñëwee ci benn soirée képp ku ñu gis mu déborder wala nekk ci piste bi mu fees respecter ñu distance yi mais kooku amatul droit jouer ba Covid bi jeex on aurait compris mais am na ay lieux yoo xam ne ba tey ay restaurant la nit yaa ngi fa di reer di añ mais soirée mën na fa am tamit noonu nit yi di reer di añ toog respecter distance yi ku nekk ah. takk sa masque. alors ndax ndax dogal bi balaa muy wàcc euh, toog ngeen ak ki nga xamante ni mooy jëwriñ bi yor seen secteur bi. Mhm. muy le ministre de la culture. ndax amal ngeen ci waxtaan ak moom ndax waxtaan ak acteurs yi. am na yenn acteurs yu mu waxtaanal. Mhm. am na yenn acteurs yu ko seet si yu ko seeti. Mhm. am na tamit yenn mag yi nga xam ne ñoo ngi. bi dogal bi wàccee wala avant dogal bi. bi dogal bi wàccee su ma jum bi dogal bi wàccee mm. parce que même avant dogal bi di wàcce maanaam bu ñu ko autorisé am na ñoo xam ne dox nañ ci ay tànk dem nañ ko seeti expliqué ko ñu ubbi ñu autorisé mm. et bi ñu ko autorisé gis nañ am na ay soirée yu bëri débordé wul nit yi dañ ko dañ ko dañu respecté gestes barrières yi mm-hmm. mais dogal bi encore bu mu ñëwaatee am na ay mag ay kilifa si suñu biir yu dem waxtaan ak ministre de l'intérieur waxtaan ak ministre de la culture waxtaan ak ministre de la santé pour comprendre lu tax benn secteur kese la ñu mu liggéey alors yeneen secteur yaa ngi liggéey. lan lu tax yow ci sa xalaat loolu lan nga xalaat ne moo ko waral. ndax dañ ko ndax jëluñu ko ndax li ñu mën a jàpp mooy du ñu jël dogal rek ci seen teeyu bakkan am na lu war a tax lu ko motiver. lan lañ leen wax man je me dis. Hmm. manque de considération la. ñàkk a warmaal artistes yi la. ñàkk a seen liggéey. Hmm. même su fekkee ne am na yenn artistes yoo xam ne peut-être ñoom ñu ngi ñàkkal fayda yu ñuy def mais majorité bi ñàkkalul fayda lu muy def ñàkk respecté suñu liggéey man noonu laa ko jàppee ne moo tax ñu def dogal bu mel nii dañu foogoon ne tamit du mujj fen kenn du jóg kenn du wax dara du am wala xëy na am na ñenn ci artistes yi nga xam ne jox nañ leen ay aide ñii ay vingt six mille ñii ay dix huit mille wala ñeneen ñoo xam ne waaw jox nañ leen ay dinañu noppi alors que mënuñu la jox dix huit mille francs xoolal pour les danseurs dix huit mille francs pendant neuf mois amoo activité. dix par danseur xam nga yenn artistes ay vingt cinq mille lañ leen jox ay vingt cinq mille ñenn ñi ci wàllum soba SODAV defe naa xaw na gën a bëri am na ñu am ay cent vingt mille ay mais loolu sur neuf mois d' activité ça et surtout jamono ji nga xam ne muy fin d' année bi. Mhm. nga xam ne spectacle yi da gën a bëri euh, yenn arbre de Noël yi yenn c' était l' occasion pour ñoom ñu suqal actuellement yenn saa yi dafa am ay artistes yu lay woo. Mhm. la naan sama borom kër a ngi nii toog neen daf may génnee suba. xam nga lan ngay def da ngay jël sa téléphone woo ñaar ñetti nit. y a un drame social derrière. c'est c'est énorme am na yoo xam ne sax mu noo ko fi wax. te ay artistes la boo xam ne bu ñu la nee mi diw moo la woo wala ñii ñoo la woo ay musiciens. doo ko mën a gëm yoo xam ne yóbbu nañu Sénégal fu nekk. représenté nañu Sénégal fu nekk ay instrumentistes. mais dañ lay woo sa yaram day daw. dangay ngay obligé après yëkkati sa téléphone yow oo deux trois confrères wala yenn grands yi et pour ñu dem wàllu ñooñu alors que tey si on avait autorisé ñooñu ñu liggéey mais lii yëpp du am. loolu man je trouve que c'est juste un manque de respect des autorités. alors euh, fonds bi nga xamante ni génne woon nañ ko pour euh, dàmp ñi nga xamante ni euh, ay impacté lañ woon fonds boobu fan la ci artistes yi tolloon ci gis ci seen bopp. bon honnêtement man nag j'étais un peu déconnecté parce que man dama ne woon du ma bokk man ak sama ñenn nit yi dañu ne woon du ñu bokk ci fonds yi duñu laal ci fonds yooyu noonu mhm. mais. li ma mën a xam daal mooy doyul par rapport ak temps bi artistes yi yëpp toog liggéeyul alors que gis nañ ne artistes yi ci Covid bi engagé wu nañ foofu laa bëggoon ñëw tey on bien placé pour wax ko parce que dès bu affaire bi amee mhm. et damay c'est l'occasion tamit de nuyu de remercier le le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr parce que xam naa ne bu desoon ci moom kese mhm. ndogal bi nii du wàcc mhm. am na ñu waxtaan ak moom am na ñoo xam ne déggante na ak ñoom xam naa ne su desoon ci moom kese lii du am parce que tey dès le départ bu Covid bi amee ñun bokk nañ ci ñi jëkk def ay wëy jëkk def ay capsule dem seeti ko ne ko ah lii est-ce que baax na parce que bëgguñu communiquer ci loo xam ne amaana day safaano ak seen communication exactement mm, mm, mm. ñu ñëw contribuer ñu rafetlu lu ñu def et cetera et on a continué même bu artistes yi arrêté on a continué de faire des capsules ba tey di sensibiliser di si dégg lu ne am na ay sénégalais sax yu lay attaqué ci réseaux sociaux yi naan ay complice ngeen feebar bi amul dangeen bëgg xaw ma vaccin yi jàll et cetera mais n'empêche nee nañ day matte du matte on a continué suñu suñu suñu suñu suñu communication donc artistes yi même bu dul ci wàllum covid keroog maa ngi koy wax ci plateau bi bu ñenn artistes yi jëlu woon le lead na tey président Macky Sall du nekk président du Sénégal et ñoom xam nañ ko tey bu yenn artistes yi jëlul woon le lead première alternance bi am suñu grand frère yi première alternance bi am 2000 du am parce que il participe énormément à conscientiser jeunesse bi ci wàllum dem leen voter ci wàllum xam leen seeni Euh, droit et devoir ci wàllum yeewu leen participer leen ci seen démocratie réew di dem di animer ay conférences un peu partout pour ndaw ñi di yeewu pour ndaw ñi di nekk ci entrepreneuriat di gëm seen bopp mhm. mais tey ñooñu ngay ñëw jàppee ay caaxaankat